te di la déwénati rek te di la baalu ak tey ñu fekk la fi ci Masaalikul Jinaan nga julli si li nga xam ne mooy korité tey ban message ngay wax ñi lay seetaan. Ah, di nuyu waa Sénégal yëpp di leen baal wax di leen baal di ñaan suñu borom subhaanahu wa mu baal ñu. nangu ñu suñ koor ma ñu fekkee déwén ak or yu bëree bëree bëri koor yu bëri eh, defe naa ne koor gi jaar na ci yoon sant suñu borom. sant di suñu borom di wax ne tey julli gi neex na waaye xutba bi neex na ndax sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides yàlla na fa yàgg te wér euh, li wax euh, yóbbante bataaxal bi mu jox imaam euh, dafa dafa am solo ndax dafa dafa ko teg ci ci jàmm xam ngeen ni jàmm moom dafa am solo ci lislaam xam nga ni jàmm moom la ñu sàkku jàmm mooy ajjana xam ngeen euh, ci turu ajjana yi ah salaam daf ci am solo donc wane na salaam te man may te man salaam nag di taalibe daaru salaam taalibe sëñ Tuubaa ak borom dërëm ak ngërëm di wax rek ni li imam bi wax dafa am solo ci jàmm waaye dañu bëgg jàmm waaye ci la lépp xaj bu jàmm amul kenn du tal liggéey kenn du tal sa julli ci nag dañu war a bëggante bu buñ bëggante jàmm am kon jàmm rek am solo ku ñëw fii bëgg fii xañ jàmm indi fitna yàlla dafa rëbb fitna nitu fitna yàlla def ko rëbb ku gëmul yàlla nag bu leen nga nekk nitu fitna mais ku gëm yàlla xam ne ni fitna boroomam yàlla rëbb na jàmm la yàlla bëgg bu ci topp mu ñaari poñ yu xam dafa xaw a ànd sëriñ bi wax ko mu am solo mu wax ci lool muy xam-xam ak ak yar yar ak xam-xam xam-xam dañ ko war a wut sut ci xale yi ndax xam-xam boo ko amee kenn du la mën a manipuler kenn du la mën a jëriñoo kenn du la mën a nax da nekk nit doo nekk bàyyi ma xam-xam mooy wutale nit ak bàyyi ma boo ko ñàkkee da lay yóbbu ci ñàkk yar ndax mënuloo am xam-xam bi ba pare am problème mu yar ndax yar mooy xam nooy toogee nooy jëfee nooy waxee sa digganteeg sa nawle noo war a mel mu wax loolu yëpp bàyyi jëw bàyyi def lu bon jiital lu baax jiital yiw kon daal tey wax ji mooy ku xool déglu li imam wax di nga bëgg sa bopp di nga bëgg réew di nga bëgg sa réew ba lépp lu koy lor doo ci bokk di nga wuti xam-xam pour ràññee xàmmee bala nax ndax ñàkk xam li waral bëri na Wolof Njaay nee na ñàkk xam li waral bëri na kon ku xam doo ku ñuy nax ku xam doo ku ñuy jël di ko jëfandikoo comme limon nga pressé pare sànni ko gis nga xale yi dee wala dem di rayante wala di taal luñ lu mu leen di jëriñ lan lañ ciy am dara lu may bàkkaar lu may musiba ëllëg kon nañu yiw daal Sénégal réew bu civilisé la loolu lañ ko xamalee loolu lañ ko réew boo xam ne réew nit ñu bëggante ñu soppante di demalante la solidarité ah waaye du réew ay bañante ay rayante ay taal ay taal ay yàq taal kër jàmbur yàq bien kër yëfu jàmbur yoo xam ne yow mënoo ko koo jox yow mi koy taal ba kër yàq xam nga ne yow mënoo koo defar xam nga ne yow mënoo koo jox kooku xam nga ne yow mënoo koo réparé waaye loo ci jublu ndax amoo xam-xam loo ci jublu ndax dof nga loo ci jublu ndax xëy na sa bopp bi dañ koo naan sa yuur gi dañ koo naan boo amoon xam-xam kenn naan sa yuur da ngay def yëfu nit dañu bàyyi yëfu dof xam ngeen li am Touba mosu fee am kan moo mos a tur ci ci jumaa Touba même sëñ Touba mi moom jumaa ji kenn du ko tudd parce que kër yàlla la nu fi turee turu jàmbur ci biir jumaa sëñ Touba xam ne xale yooyu dañoo sànku nañ dimbale xale yi jàngal leen waay jox leen xam-xam teg leen ci yoon wi waaye bañ leen jiital rek daf leen ay ay ay daf leen ay ay kii rek ay ay objet ñuy utilise rek ñuy dee di yàq di def fu dof ndax amuñu xam-xam ay xale yi waaye seet leen ci mag ñu baax ñi mag ñi yar leen xale yi Sénégal benn bopp la kenn ko xar ñaar buñ ko taalee fu ñu jëm fu ñu dëkkati lu ñu amati ku ñu jox lu ñu lekk lu ñu naan bala nga naan naam nefa fa bu ñu reyantee ba jeex ku fi des dañ bëgg jàmm ba déwén incha allah gis xam ne mooy le président de la république fële ca grande mosquée bu Dakar mu woote li nga xam ne mooy dialogue ndax loolu mooy li gën ci jamono ji président yàgg na woote dialogue ci la dëkk ndax loolu moo jig Sénégal mais dialogue day fekk am ñëpp bëgg ko mënoo forcer kenn ci dialogue am ñoo xam ne duñ ay nitu jàmm nitu ay nitu fitna lañu président oo na leen duñ ko faale ñu ko ñu bëgg a jàmm di leen dam wax moom yàgg dañoo wax ak moom ndax président dafa am mission dañ ko dénk réew mi ëllëg mu war a rendre compte ëllëg dina rendre compte suñu borom ni mu sàmmee woon njaboot gi kon day bëgg njaboot gi nekk benn réew mi jëm kanam mais am na ñoo xam ne ñoom bëgguñ Sénégal bëgguñ jàmm bu wootee sax duñ ko sax déglu waaye mais ñaan na ko jëpp déglu nag parce que mooy njiiti réew mi te bëgg na jàmm ñu ànd ak moom defal defar jàmm doxal jàmm jàmm rek teew Sénégal ndax Sénégal benn bopp la kenn mën ko xar